lépp mi ngi door ci ay enregistrement audio yu ñu doon séddale seen biir daayira Xudaamul Xadim doon kuréel gu ñu ngi ko taxawal ngir nag sàmm war may dëkk bu sell bi di Touba. doon woote ngir jëflanteeg ñenn ñu ñu ne dañuy ñàkk gin yoon wi. ñu ni wax ni eh, bépp élément boo xam ni bokk nga ci Xudaamul Xadim moo xam na ngay soltani wala solotani. suba 8h képp koo xam yor nga mën a xeex na nga ko indaale ci eh, fi ngànnaay ndax am na fu war a a def. lu sëñ bi def loo te lu sedd. woote bi ginnaaw bu mu jibee mbooloo mu takku tàmbali xëy suba teel ñëw wuy si ngir moytu fitna kilifa yi ba ñu yëgee lu ni mel jël ci ay matuwaay takk der yi teew fi ci lim bu takku daayira Xudaamul Xaddim ne deltu nu ginnaaw ci congo gënu bëggoon a cong ñii ñu tudd ne dañuy ñàkk teggin yoonu murit waaye ñu ne nu kenn ku jëfee lu ni mel. démb bi ñu jotee ndigal li li ñu bëggoon a def mooy dem jëflante ak ñoom ndax mbir mi il mu leer dañu doon dem pour jëflante ak ñoom. ndax am na ñu jóge woon Dakar sarse ñaari kaar ak ñu jóge Diourbel ñëwoon nañ démb nag ci guddi depuis minuit ba 4 heures de matin maa ngi jot ay téléphone ci autorité yi ñenn ci police ñenn ci gendarmerie ñenn ci autorités yi ndax xam ni sëriñ bi woote wut sëriñ tubaa woote wut violence waaye lii ñu gis su fekkee wuñ ko te kilifa yi taxawuñ ci ak autorité yi violance dana am ndax pas-pasu jàmbur kenn amul droit di ko laal ku tone sëriñ Touba ak li mu jiite ci àdduna ak soppe yi mu am. yaakaar naa ni ko yàlla def kum neexul war ngaa mën a maanu ci moom. kilifay Xuddaamul Xaddim ne yàgg nañoo artu waaye booba ak léegi ñiy jëfee lu nu mel dañ leen a lu te lii mënatuñu koo ba mu wéy. liñ bëgg mooy euh, na dakk waaw amatul nag luñ ciy bañ. suñu kër lañ nekk Touba du dëkk kër la suñu soxlaa ñu génn fi soxla wu ñu user de violence ndigal la ñuy jóge ak baat bu ñu demee nag bu ñu dee jaay doole nag bu fekkee ñoom ñoo ëpp doole loolu danañ ko kenn kenn mu nekk ci dëkk bi te daara yi fi nekk yëpp recensé nañ leen wala yu si bari recensé nañ leen te danañ danañ danañ ak jàkka yi fi ne yu ñu defee ay prédication di xas Sëriñ Tuubaa di dajji Pastefu murit bu dee xam-xam ñoo leen ko ëppale fuuf amet loom yi ngeen di wax moo leen jiite mag maa moo ñoo bokkoon daara di jàngi ci jumaa ji xam-xam ci fàttali kër ñii ñu tudd te doon ko waaj song songu mi ngi nekk ngaabu doon gox bu mi ngi nekk ci booy dugg Mbàkke ci yoonu njaare wi jamono ji takk der yi teew ci lim bu takku ngir wattu leen jërëjëf ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di leen sant itam ci jéego yi ngeen def ba ñëw fii pour leerlu li nga xam ne moo xew euh, li am mooy ñun mbootaay lañ goo xam ne dañoo àndandoo di liggéey ci lislaam ay boromi xam-xam jiite ko yoo xam ne seen yitte mooy jàng ak jàngale ak yar ndaw ñi dale ko ci jàngale alquranul karim yéeg ba ci ay université sax yoo xam ne dañ fay tàggat ndaw ñi di leen yar ci mokkal alxuraan di leen yar itam ci dundu seen diina ci digg doomu tooñuñu kenn xasuñu kenn ŋaañiwuñu kenn kilifa yi nga xam ne ñoo jiite association bi di def ay waxtaan ci mbooleem euh, goxi réew mi bokkul ci seen méthode sax ñuy wax di tudd ay nit wala ñuy tudd ay dëkk wala ñuy tudd doxalinu kenn li nga xam ne mooy seen mission mooy jàngale li ñëw ci alquran li ñëw ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi yar ci ndaw ñi nekk ca loola jiite ko itam di ko jëfe dem nañu nag ba jamono kilifa génn def déclaration wax ay wax ne ñoom ñoo koy wax wala ñoom ñoo koy def te loolu du seeni wax loolu itam du seeni jëf kilifa googu déclaré ne lu ñu gis moom la ak ñi nga xam ne ñoom la àndal loolu bañ ko déggee ñun ci association Daaru Istiqaama jël nañ ci suñu matuwaay mooy def déclaration comme déclaration la woon ñu def déclaration bu leeral suñu taxawaay ak taxawaayu kilifa yooyu ci seen jàng ak seen jàngale ak seen doxalin ci wàllu yar ak wàllu formation loolu bañ ko defee ay fan yu néew lañ ci teg ñu jot ay message yu leer nañ yoo xam ne dafa wane ne waaj nañu pour songu si kilifa yi yenn ci kër kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy suñu njiit nekk ci yoonu jàngale woowu jiituñu ci diñ ci tàggat itam ah, ba loolu amee nag ñun ay sénégalais lañ yu dëkk ci réew mi li sénégalais yëpp am ci réew mi ñu am ko fi muy sañ fee dund euh, dund fi itam li nga xam ne moo ñu convaincre ci diine nekk ci loolu tooñu ñu kenn menacé wuñ lu keneen nekk itam waaye li nga xam ne moom la ñu gëm ci la ñu nekk ci loolu la ñu la ñu jàngale ci loolu itam la ñu ah réew mi nag dafa am yoon moo tax ñu yëgal autorité yi li nga xam ne moo jóge faneen ñëw ci ñun ci ay kàddu alhamdulilah boobu ba léegi autorités yi jël nañ ci taxawaay yañ ci war a yañ ci war a def ci sécuriser eh, jumtuwaay yi ak kër yi nga xam ne moom la ñu ciblé woon euh, booba ba léegi itam ak dal mi ngi amandi gisuñu benn menace boo xam ne jot na yegsi ci ñun walhamdulilah waaye it su fekkoon autorités yi lañ ci war a taxawee taxawuñ ci itam ba ay songu di ñëw di ñu fekk ci suñu biiri kër suñu biiri kër yi nag wax dëgg yàlla ñoo ko yilif te nit du seetaan bañ fekk ko ci biir këram di ko attaqué mu croisé le bras ay loxoom toog ne rek nañ nañ def ci man lu ma soob loolu alhamdulilah yegguñ fa ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax di sant itam autorité yi boobu ba léegi ci taxawaay yi nga xam ne am nañu ko ci mbir mi waaye di yëgal sénégalais yëpp daal ne ñun suñu mbir mooy jàng ak jàngale ak yar ci ni ko yàlla subhanahu wa taala jàngalee ci téeréem bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon ko doxalee noonu xasuñu kenn ŋàññiwuñu kenn Euh, saboote wuñ fi kenn itam li nga xam ne nag moo ñu convaincre ci diine ca loolu la nekk di dund. waaw euh, Abdou Salam Lo chef du village su Ngabou 2 euh, ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax ne yii xew nag yu bette la ndax defoon nañ ne du agsi fii fii nag jàmm rek lañ fiy woote ak salaam ndax moom lañ xam Cheikh Ibrahim Khalil Lo mi nga xam ne moo yor daara ji du fi gan ci kër gii la juddoo kër gii moo nekkoon kër waajuram waajuram di doomi Serigne Ibra Lo mii rek Serigne Amsatou Lo mi nga xam ne ñoo sañ ci dëkk bi juróom juddoo fi moom mii mu juddoo fi donc kon ngaabu la dëkk dookul ab doxandéem boo xam ne dafa jóge ci àll bi ñëw te sañ fi kon fii la dëkk ñun ñi dëkk ak moom it wax dëgg yàlla bi ko xamee ba léegi jàng ak jàngale ci lañ ko xam ak jàmm ak salaam mosuñoo gis dara loo xam ne aw aylaw la walla violence bu jógee ci moom mosul mosul am jàng mi it ñu baree bari seeni doom dañ fi ñëw di fi mokkal alxuraan man mii ci laa am na sëti sëriñ Tuubaa yoo xam ne nii fii lañ mokkal alxuraan ba dem mën naa la cee tuddal yu baree bari loolu nag lay def di woo ñëpp nag ci calme ak dal parce que violence moom du jur lu dul violence te bu xasee tàmbali xamees na fu muy tàmbali mais fu muy yem kenn xamu ko donc ay responsable di ay kilifa di boroomi xam-xam luñ mënta régler ci waxtaan ci jaloog foog naa violence du ko régler te yenn saa yi danga dugg ci mbir xeeb ko mais euh, dana àgg foo xam ne su doon cassette boo mën a arriéraat doo ko defale noonu kon nag damay ñaan ñëpp delloo si xel yi waxtaan ci jàmm ak salaam loolu dong moo fi xaj leneen lu mu doon nag lu ñuy tal lu nekk dañuy am jàmm ba noppi loolu daal ci kàddu yi gàtt loolu laa ne woon daa ko ci sànn fekkee amul beneen question